salaamaaleykum wa rahmatulah li ma indi ci marché bi tey mooy sama rak sama xarit sama doomi ndey sëriñ Souley jaañ daf ma boole woon ak i rakkam muy sëriñ Modou Diagne ak sëñ Jiili Diagne mi ak i xaritam. ñu leen ci ràññee sëñ Ngañ Seye ñoom ñëpp daal ak sëñ Cheikh Sylla i xaritam kenn ku ne xam leen ñu ñëwoon ci marché Ocass woon fi lan jàpp ci li nga xam ne mooy li dal marché Ocass kenn ku nekk xam na ne marché Ocass dégg ngeen li fi amoon jéye ji. bi mu toogee nag ba léegi mu xam ne marché Ocass ab dëkkam la léppam la Touba dëkkam marché Ocass di marché bi nga xam ne tey lu ko yàlla wërsëgale fi la ko jëlee woon nekkoon fi marchand ambulant nekkoon fi tablier nekkoon fi lépp borom taabul ba dem tey ba yor dem tey ba yor industrie lu mën a yor mu nekkoon kon kat marché bi dafa lakk am na problème moom na contribuer ci marché bi jàppale ñi nga xam ne ay nawleem lañ ci nekk bi loolu moo waraloon tey mu boole maag rakkam yi ak xaritam yi ne naa ñëw fii ci marché jébbalal ko li nga xam ne mooy ndimbalal li xam ne dimbalee na ko ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg natt bi mu toll ci fukki million yoo xam ne nii dugal na ko ci biir marché joxe ko ngir ñu euh, dugal ko ci liggéey bi nga xam ne moom lañ war a liggéeyaat ci waa marché bi nga xam ne ñoo lakkale loolu nag defe naa ne lu rafet la geste bu rafet la ndax kenn ku nekk xam na ne ni ma ko waxee fii la déparé woon waaye fàttiwu fii fàttiwu leen nag ci lenn ndax lii du tey kenn ku ne fàttinu na bi mbas mi amee lu toll ci cinquante soixante millions jàppoon na ko boole maa ñii tey moom moo boole loon ne ma nañ ko indiwaat fii ñu jëndee ko dugub jënde ko ceeb jënde ko diw jënde ko suukar jënde ko lépp loo xam ne doomu aadama dana ko war a mën a jëfandikoo mu andi ko ñu dajewaatoon ci kër sëñ Touba jox ko askanu Touba ba nga xam ne yàlla mën na jàppale na ndax la ke tuuti tuuti kenn ku nekk am nga ci ñaari saako wala ñetti saako ca loolu muy ndimbal loo xam ne defoon na ko ngir dimbalee ko ñi nga xam ne ñoom la euh, mbas moomu daloon ak ñi nga xam ne war naa mën a métti ci ñoom muy sess bu rafet loolu jóge ci wax naa ko léegi sama discours du boobu rek la ma sa jëf waaye am na yeneen ñu ko raw ndax kenn ku ne xam ne taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci Moukhaddamatoul Khidma te Moukhaddamatoul Khidma bu ñu ko waxee mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk ñoom la Serigne Touba dénk jumaa ji nga xam ne ñoo koy taxaw mu geste bu rafet boo xam ne koo ak lu mu mën a doon ak lépp lu ñu fa war a def rek bu ñu ko ko yëgalee mu def ci effort am bu mat sëkk kon Serigne Souley xale la waaye nag xale bu am jom la xale bu am avenir la xale bu bëgg lu baax la xale bu xam fi nga xam ne fi la jóge woon ndax li gën a rafet ci liggéey mooy toujours ngay fàttaliku fa nga xam ne fa nga dëkkoon fa nga jëmoon nga xam ne lépp loo am moo la ko may muy Touba ci mi ngi koy fàttaliku waxtu wu nekk kon na koo ñaanal te ñaan ñëpp ñaanal ko ci barke Serigne Touba ñaanal ko ñëpp ñaanal ko ba lu mu mën ren mën ko déwén ba lépp lu mu bëgg a defar itam defaat lu ëpp loolu ndax am na yéene ci am na xolub joxe ginnaaw bi ma en tant que bi ma fi ñëwee comme adjoint maire li may gën a def mooy ñaaxaat ñëpp ndax Serigne Touba Serigne Mountakha wane naw ñeneen ñi nga xam ne ay bonne volonté la wane nañu yoon Serigne Souley mii wane naw yoon kon nag li may def mooy lancer appel ci képp koo xam ne nii yaa ngi marché Ocass wala yaa ngi Touba wala koo mën a doon wuñ kenn moo xam ngay marab mooy xam ngay kilifa parce que ñii jóge ci marché bi lu mesaanam itam dañ ko yóbbu ci kilifa yeeg ñëpp kenn ku ci nekk contribuer xam ne lii mbas na mën na moo xam ne dugg na leen muy jëyee joo xam ne ñëw na fi kon an maire bi moom taxaw na ci mi ngi ciy jàpp waaye sant ku mel ne Souley maire bi sant na ko ndax Abdoulahat bi ma xëyee jokkoo nañ ci ñu avant mu yebal délégation lépp laa ko wax li nga xam ne Souley def na mu rafetlu ko moom ci boppam moo ne ma lii de bu ma am am fu ko sëñ yoon yónni waaye daf ne ma woon kon ñooy ànd maag yow ñëw ci marché bi taxaw loolu ndax su lay sama rakka waaye lii mu def day sest boo xam ne ni am na solo lool te moom rek lañ gisagun ci ñi nga xam ne daanañ liggéey fii ci départ fi génne fi dem marché mu def fi jëf ju mel nii kon loolu warees na ko ci sant gërëm ko ci